journal La Tribune xëy di méngale ak réewum Sénégal ubbil yéenekaay bi jërë ngeen jëf Maguette mu wopp ba foo laal muy wonk moom la journal La Tribune xëy di méngale ak réewum Sénégal yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne bari na ci réew mi ay secteurs yoo xam ne boo ca jël ña ca nekk ci ñaxtoo ki xultoo njàmbat ak mer mu dul jeex ca la nekk transporteurs yi ci réew mi xëy nañu tey ji gréew ñaari fan ngir di jéebaane coono bi ñu dund ci kaw tali bi te nee nañu ñenn tegu ko ñu dul policiers yi gendarme yi ak douaniers yi nga dem ci wàllu njàng meeg njàngale mi waa CUSEMS di cadre unitaire syndicat enseignement moyen secondaire ñoom it gréew général la mu rëy moomee gaañ yi di dund yéenekaay bi nee nañu ñi ñu jàpp na ñoo leen ko teg ba di leen joxar bi baaraamam tuuma ñoo di ministre Mansour Faye ministre Cheikh Oumar Anne ministre Abdoulaye Diouf ak ministre Abdoulaye Seydou Sow seen kilifa ñoom ministre yooyu yëpp di président Macky Sall journal L'Observateur moom la xëy la mu waxoon keroog ba muy gisee ak waa cadre unitaire dialogue islamique du Sénégal mu di am na yéenay ubbi waxtaan ngir réhabilité kii di Karim Wade ak Khalifa Sall borom xam yi ci politique bi am nañu ci gis ab dank fanaanal bu président nak ba teg Macky Sall dafa bëgg wan nit ne moom nitu jàmm lu dul jàmm doxu ci docteur Moussa Diaw bu université Gaston Berger ba ca Ndar ne li président Macky Sall wax ak xalaat bi mu am lu rafet la waaye moom li ko ci jaaxal moo di ci jamono ji ko Macky Sall waxee l'observateur nañu am na ñu gis ne ay pexe la yu mu lal ngir isolé Ousmane Sonko yéenekaay bi di xëy moom ci fitna ji ñu nimiku ci géopolitique bi ci réew mi ba dañuy wax ne ñi ci wax ñëpp politiciens yi la ko jiiñ kenn ci politiciens yi réew mi di Mamadou ku ci nekk ci ñoom def nga fi lu xel mënut a nangu ñu nangoo ci xët mu bi kàdduy Serigne Mansour Sy Djamil yu muy waxee ne ci jamono ji may waxe ak yéen élection locale yi tax nit ñi di daw ak kër te kër te ka sonn gaa ñi def nañu seeni résultat bu nuppi ba tegal ko Macky Sall ca taabalam enquête dina kay nañu fitna ci wàllu politique bi ci jamonoy élection réew mi da ko yàggee as Babacar Gueye bu parti réew mi nañu moom li mu jàpp ne moo waral fitna ji a yaatu ci géopolitique moo di réseaux sociaux yi ak jeunesse wax ne ñu bari ci ñoom amel nañu artistes yi xaalis ndax redevance gi ñu war fay artistes yi ci seen way yi jëfandikoo fayuñu ko te loolee nag du tey ne campagne présidentielle 2012 bi ba tey parti politique yi nangu ñoo fay artistes yi seen i mel na Moustapha Niass ndéem si yàlla Ousmane Tanor Dieng ak Idrissa Seck ñoom rek ñooy ñi nga xam ne jotoon nañoo fay mu di mbir moom source waa nee nañu acteurs culturels yi ñoo ngi koy jooyee fu nekk ministre culture communication di Abdoulaye Diop moom la journal l'info xëy di Sénégal ku ñu naan Demba Ndir moo créé woon label bi ginnaaw bi mu jaay ko ndem si yàlla Moïse Ambroise Gomis moom it mu jaayat ko Mariam Badiane kon ay privé rek ñoo ko séq di ko doxal waaye nag war na ak fi yëf yu tollu jamono ji ñi ko séq ñëpp toog waxtaan ci ngir mu dellu melaat na mu meloon ci lu dul am benn problème problème bi ci jotoon a am fan yi mu di tuumay viol te jóge woon ci Fatima Dione Miss Sénégal 2020 journal L'Observateur mi ngi ñuy xamal ne ko sûreté urbaine mu yéeme ci libération pil yéenekaay bi seen nas ndaw suñu naan dabakoli dëkk ci cité kër xaadim ga ca Grand Yoff moo piqué crise xaaju guddi jël paaka jam ko ndeyam ju am juróom-benn fukket ak juróom-ñett ak ñaari seexam yu góor yu toll ci fukket ak benn kenn ki ci mbagg la ko jam ki ci des mu jam ko ci ginnaaw gi l'observateur nañu moom dabakoli nee na ay jinne ñoo ko feeñu ne ko na jël paaka rey seex yi